mu ngi noonu mbokk yi déglu ko ñu def naan di wax ñu déglu ko si wu. on nous jox le président Ousmane Sonko. asalaamaaleykum mbokki Kër Massar. ñu ngi leen di ziare. di doore sama wax ci. rendre hommage à suñu doyen Ibrahima Sey waaye di rendre hommage aussi ñëpp fii ci Kër Massar ñoo xam ne ci li ñu jàpp am nañ ci loraange moo xam ñi ci ñàkk bakkan ñi ci gaañu ak ñi ci demoon kaso su ma dooree foofu li ma bëgg mooy su may jël région par région fii ci région de Dakar mun naa ne département yëpp amoon ñu taxawaay bu doy waar bu rafet ci xeex bi ñu xeex contre le projet de liquidation de ce que mooy fii ñu bëggoon yeggale Sénégal waaye nag Kër Massar da cee am. une part particulière fii ci région de Dakar bu ñuy wax xeetu Pastef dëgg dëgg dëgg dëgg Kër Massar tax ñu wax li ngeen ci da kenn daju ko ci li ngeen taxaw suñu kenn taxaw ko ci kon ngàcce gaalama Kër Massar xam leen ni projet bii actionnaire majoritaire ngeen ci su ngeen ci ëppalewul kenn ëppalewu leen ci bu du woon seen taxaway fii ngeen taxawoo fii ci Kër Massar waaye daa bàyyi seen yitte yëpp déplacé wu fekki nit ñi biir Dakar jàppale leen ci jàmmarloo bi taxaw bi bu du woon loolu peut-être fii ñu egg si ni duñ ko si te loolu c'est la Kër Massar mais également c'est sont, qui sont très dans projet et qui vous moo tax ma ne Sénégal dafa am ñoo xam ne xamuñu parce que ñoom nañ daan defee politique ak nañ daan yeggee ci nguur moo tax saa yu dénkee pouvoir ñu caaxaane ko waaye ñun fu ñu jar ak li woon suñu gëm-gëm moo tax ku yaakaar ni lii yàlla dénkuñu xaani yow xamoo moo tax ba léegi ñoom ni ñuy opposé mënaguñu opposé wu parce que xamuñu ñun fi ñuy jëm ban xaal la toll ñun dañuy jaamu yàlla ci ndii ñoom nag pour ñoom politique mbirum àdduna la mbirum fex ba ndax nit ñi ba jot détourné ay milliards dugal sa poos sàggane réew mi ba pare seetaan nit seen jafete est-ce que ñaar ñooñu mun nañoo xeex donc élection législative bi dañ leen war a duma duma goo xam ne écart bi dafa war a doon écart boo xame fa ñu jógee xam ni ñoom dem ñu définitivement à retraite politique moo tax mobilisation bi dafa war a am solo mobilisation bi dafa war a raw sax bi ñu defoon ci élection présidentielle parce que nag assemblée nationale mooy liggéey réew de fi ñu ne fa ñuy boote loi yi fa la ñuy voté budget bi fa la ñuy définir lan mooy li ñu war a xoole ci liberté yi ci droit politique yi ci droit syndical yi ci nationalisation yi ak ci contrat internationaux yi ci traité internationaux yi amul lu ko ëpp cër ci Sénégal moo tax ngeen war ko farataan dama ne nag Kër Massar dafa am place bu am solo ci projet bi moo tax lépp lu concerné Kër Massar dafa concerné man personnellement léegi dañu wax ci oto bi ma ne Kër Massar en tant que département waroon na am lu ëpp ñaari député ndax ndax soo seetee li fi dajee ci population wax dëgg yàlla waroon nañu xool nuy yokkee la représentation Kër Massar loolu tax ñun bi ñu gisee ni département bi ñaar moo ci génn ñu am ñeneen ñoo xam ne man maa leen dugal ci liste nationale bi pour Kër Massar mun a am benn wala ñaari député ci yokku pour mën a taxawal leen assemblée nationale tey ji Kër Massar les déplacements de population dafa jóge kaar ñëw booru Kër Massar doog a war a continuer feneen ci booru Rufisque moo tax faw rek Kër Massar am des infrastructures adaptées su ne su su bërëb nekkee bi ñu naan Kër Massar bu njëkk ba defe naa village bi ñu deewree fële foofu moo taxoon ñuy wax Kër Massar lii lépp àll la woon kon bu dëkk yi yokku di jël ba toll fii mu toll état bi tam dafa war a accompagner ci wàllu infrastructure ba dëkk ba uyoo turam. il y ans def nañ département waaye bañ koy def département moo taxoon def ko ki ko def département dafa yaakaaroon ni dina mun a am ñaari député yo ñu dem élection yàlla nattu ko amul ñaari député yo waaye bay def ab bërëb département. tey pexe ba li mu soxla ci tali soxla ko ci ay hôpitaux soxla ko ci ay école soxla ko ci ay infrastructure socio sociale de base loolu li dafa war a ànd ak moom pour mu a uyoo turu boo xam ne mi ngi fii ci biir région Dakar loolu mi ngi ci projet bi nga xam ne moom lañ leen présenté tàmbali waaye dina wax aussi benn point. mooy dañuy interpellé ci mbirum marchand ambulant mbirum marchand ambulant nag régime bu toog rek day doon benn set ci yow moo tax man dégg ngeen ma yële ma dajale yéen marchand ambulant yi nekk Colobane woo leen primature ñu ñëw mu waxtaan ak ñoom bu ma ca dama joxe ay instruction jox ko monsieur le ministre de l'intérieur jox le ministre bi nga xam ne moo yor les collectivités territoriales waaye dama bëgg ngeen xam lenn dafa am loo xam ne mbirum commune la du mbirum état central man premier ministre moo président Bassirou Diomaye fay li nga xam ne attribution commune la ñun amu sañ-sañ nekk sa commune bi doo doxalee nii wala di ko doxalee nii su dee nag war naa andi ay problème yoo xam ne mun am lu mu salfaañee dafa am loo xam ne ci communes yi la dañu nekk ci système boo xam ne décentralisation la mooy dem nañ ba jàpp ni benn état nga mënul toog fële Dakar ne moom mooy décider ci lépp ñu ne kon nañu créer des communes et des conseils départementaux kenn ku ne ñu jox la lenn ci attribution transférer yenn attribution gestion des marchés compétence su maire la ak commune du compétence su premier ministre ak président de la république waaye tawul man li ma wax maire yi parce que état benn la doonte am nañu compétence mais ñoom c'est des représentants de l'état central loolu laay wax sama xarit sama rakk muy le maire Bilal Diatta dégg leen ma rek leen ma moo Bilal Diatta jàmbaar la ci combat Pastef ci lu ne pare na ci pare woon na ci pour joxe ci bakkanam kon mbir mu ne dañ koy teg ci place am c'est parce que ci benn poñ am ngi la ñu leen neexul ci moom que dañuy euh, contester jàmbaarteem ci li nga xam ne moo ñu andi fi nekk nii ay nit nag ay nit nag bu ñu bokke dañuy toog di diisoo problème mënul ñàkk ba ci biir kër diggante ay ay frère diggante papa ak dina am problème mais dañuy waxtaan rek kon dama bëgg ngeen dégg bu baax li may wax li may wax le bi Bilal Diatta moom laay wax maire yi nekk Sénégal yëpp ngeen ne problème mu marchand ambulant dafa di problème boo xam ne ñeent ko seq ñeent benn bi mooy commerçant yi nga xam ne dañoo nekk ci marché yor seeni magasin am seen place normal bi jaay war a yóbbu seen kër ñoom benn ak lañ ci ñaareel bi mooy dëkkandoo yi dëkk catu marché yi nga xam ne ñoom ay riverains lañu te léeg nañ dem ba bëgg suñu bëggee génn seen kër sax duñu mën a génn ñoom benn lañ ci commune bi nga xam ne moom moo am compétence bi moom beneen la état bi nga xam ne nag ñun ñoo ko représenté li ñeenteel bi mais man li may wax maire yi mooy réew mu xam ne ñi ko yoroon dañoo yàq yaxeet alalu réew mi sànq ko jaay ko waa bitim réew wax sénégalais lu dul dëgg ci bar biñ fi bàyyi ak ci déficit bi nga xam ne moom lañu war a fexe ba euh, rattrapé ko réew moomu boo ko jotee il faut que nit ñi doxal tolérance tolérance mooy lan ndaw ñi di def marchand ambulant bu ñu amoon leneen du ñu def marchand ambulant kon kon dañ leen accompagner ba si kanam parce que bu dee d'accord na ni yenn occupation yi ñuy occupé ñun xam nañu du yoon dina gêner ñi nga xam ne ñoo dëkk ci kër yi dina gêner ñi nga xam ne ñoo yor seen magasin dina dem ba tali bi ñi war a daw oto yi war a daw dina ko gêner ba ñi waroon dox ci trottoir duñ ko mën dox dañuy wàcc tali bi loolu loolu luñ fiy jëlee la tôt ou tard waaye nañ ko def avec des mesures d'accompagnement mooy ñu def ko ndànk-ndànk ba nga xam ne dinañu accompagner nit ñi moo tax ma ne leen lu dul bloqué ñu buntu hôpital buntu poste de santé buntu école ak ñu bloqué ab yoon oto mënatul romb ñeent yooyu mënatuñu ko nangu waaye leneen lu dul loolu nañ ci ànd ak tolérance ñu accompagner ndaw ñi ba ci kanam ñun nag en tant état wax naa leen Dakar président République jël na décision fii nga xam ne moom la si nekk actuellement foofu da ko bëgg a def ko un centre commercial boo xam ne la fay nekk la nekk ci capacité war na mën a jël lu ëpp dix mille commerçants. waaye fii ci Kër Massar génn nañu benn terrain boo xam ne dina 13 hectares fas yéene ko benn centre commercial boo xam ne war naa mun a jël bëree bëri bëri ci xëy yi nga xam ne ñu commerce. defar nañu plan yi man mii maa recevoir entrepreneur bi defar nañu plan yi te bu soobee dinañ lancer travaux yi mais en attendant ñu def loolu yëpp man li may ñaan maire mooy nañu xaw a ànd ak patience ak tolérance parce que xale yi suñu mënu def lii gaal gi lañuy ñuy dem jëli te yéen yéen ma wax nii ngeen dem jëlee ci gaal parce que am ngeen yaakaar ci kon lii lii dina ci waxtaan ak maire yëpp nii ñu ko waxee fii loolu la ko bëgg defee ci Sénégal yi ma nekkoon naa maire Ziguinchor mais bi ma ñëwee dama leen lii ngeen def. ñu tuddee ko Gonda mooy marché marché Code bu Ziguinchor dem na ba parking amatu fa may leen lii du yoon mais du ma xëy génne leen fii ma lancé projet pour tabax ñetti marché yu bees marché au poisson marché aux fruits et légumes ak un troisième marché mixte may leen su ma paree nag marché yi dootuma nangu muy occuper trottoir bi parce que dina am place pour ñëpp jël benn cantine. loolu laa leen di wax loolu la ñu mën a waxtaan ak maire yi loolu la leen mën a accompagner te dinañ ci taxaw bu soobee yàlla. fi may daanelee nag wax parce que ñi nga war a dem meeting Guédiawaye yéen ñëpp gëm naa ni su ngeen jógee fii yéen a ngi dem Amadou Bari foofu dinañ ci waxtaan li ñu war a def ci pôle bi waaye gars 66 000 cartes yu nekk ci préfecture bi te jeunes yi jële buñ ko loolu du yoon dem leen ngeen di carte électeurs yi parce que carte électeur mooy permettre ngeen participer ci combat bi parce que koo xam ne un an dem ci gannaaw yaa ngi woon mbedd bi di jàmmaarloog alkaati yi bu dëgg yàlla mën nga mu am lu gën a loolu carte électeurs yi parce que important te jouru élection bi dans cinq jours wala dans quatre jours li ma bëgg mooy à sept heures du matin bureau de vote dina fees dell xam naa ni ambulance ñoo fay jiitu ñëpp borom mooy jakarta yi ñoo fay jiitu ñëpp parce que yàqkat yi ñun bi ñu tooy ba léegi six xam ngeen ñan la ñuy waxal ambulants yi ak jakarta ñoom seen la ñuy essayé te du ñun waaye defe naa Sénégal yeewu kenn gënu a xam li xew ci réew mi kenn gënu leen xam fi ñu bëgg yóbbu réew Kër Massar Kër Massar xam ne mooy premier département de la région de Dakar en termes d'engagement gëm naa ni gën saa gàtt nañ fi am pour cent Kër Massar wane ni Pastef moo ko moom ñu ngi leen di di leen sant. asalaamualeykum wa rahmatullah noonu mbokk yi kon